sayyidina wa mawlaana muhammadin il amiin wa ala aalihi wa saxaabatihi al ghurri al mayaamiin wa ala xayri xadimihi dil xabli al matiin wa ala man iqtafa aathaarahum ila yawmi ddiin bokk julli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw bi nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal a Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wi tedd wi nga xam ne noo ci cat li ndax tey mooy fukki fan ak juróom ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci ci weeru koor wi ci ndokkeel ñëpp na mooy bis bi nga xam ne ci la Sëriñ Tuubaa woote woon yoonu murit kere ba mu siiwalee ne sun boom eh, ci ne sun kere ba mu waxee waa daal ji ne leen képp ku fi ñëwoon te njàngum kese te mën ngaa seeti feneen foo jàng ji ku bëgg a dox ci li ñuy dox nag na toog ñay jaanti jaanti ña dem dem da kër bis bii la woon muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci ama asachine kon nag ci njëkk ndokkeel bu baax murid yëpp rawatina Seex Amadu Muntaxa ni ci bopp bi di ko ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu ko mu àggale mboolem ay naa la ma ko yéeneem ñaan ko njabootu Sëriñ Tuubaa yëpp ak nun taalibe Sëriñ Tuubaa kon ñu ñëw ak ci seen émission Fardul Hayni bi ñu baaxoo ànd ak fii seen télévision Lamp Fall bis bu nekk ci diiru koor gi ci waxtu yii ñi ngi woon ak yéen démb te fi ñu leerale jaxasoo wala bokk teggi ni kawlal ci diggante ñaari way dencante jotoon nañ ca indi juróom-ñetti tomb leeral nañ ko ñuy jàll nag ci tomb yi ba tey juróom-ñetteelu tomb ci teggiin yi nga xam ne mooy teg teggiini kawlal mooy wujubul xusli minal jimaa war gi sangu di war ci ñaari ñaari wa denc saa buñ jaxasoo ba noppi sangu war na ci kenn ku nekk ñoom ñaar donte donte mën yu génnut góor bu sëyee donte mën yu génnut ci moom teewul sangu war na ko jigéen suñ sëyee moom donte mën yu génnut sangu war na ko muslim soloona jële ci abi hurayrata radiyallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa wax na ne ita jalasa bayna sha'biha al arba summa jahadaha faqad wajaba ghuslu wa in lam yunzil nee na saa bu góor toogee ci diggante ñaari tànki jigéen wala ñeenti cëram mooy ñaari loxo yeeg ñaari tànk yi mooy al arbaa loolu la ci jublu am nag ñu ko ñu ko firi wutee ban na ci ñu ne mooy diggante ñaari ñaari ñaari yeelam ak ñaari poojam ñu ne mooy dañ firee bar waaye daal bu fekkee saabu bu saa li mu jublu rek ci tënk mooy saa bu sëyi soxnaam rek ci da saa bu sëyi soxnaam nee na sangu war na ko donte dara génnut ci moom bu dee muslim dafa wax ne isa jal sa bayna chambi al arba'i wa massal xitaanul xitaana faqad wajibal xuslu nee na xarfalu góor saa bu laal de xarfalu jigéen rek sangu war na xarfalu góor liñ ci lu mooy bopp sàkkara si xarfalu jigéen mooy bu buntu pay mi saa bu ci bopp sàkkara bi duggee ci buntu pay mi rek lu nga xam lu mu gàtt gàtt booba sangu war na xam nga ci émission yu bi ñuy jàngal li war a sangu dañ caa waxoon ne ma xibal xachafa fil farj dañ ko ci limaale mooy saabu bu bopp sàkkara fàddoo ci pay rek donte foofu la ko yemale sangu war na leen ñoom ñaar ñëpp donte na dara génnut Tirmisi moom da koo da ko da ko da koo fiire moom dafa eh, bu dee reewaay bi mu indi mooy itaa jaawasal xitaanul xitaana wajabal xuslu saa njongal góor gi wala boog xarfalu góor gi rombee xarfalu jigéen mooy mooy romb na bunt bi rek sangoor na su fekkee su fekkente ne mag ma mu kalaf la te jigéen ja di gone gu eh, mësëragut kon mu kalaf ma rek la sangoor jigéen ja sangooru ko parce que ñoom ñaar ñëpp ay mukallaf lañ leen ñoom ñaar ñëpp sangu war na leen ak donte dara génnut fukkeel bi ci teggin yi dañ ca wute mooy mooy na na na na làmboo dara maanaam bañu summi ko ba set wicc wicc waaye loolu nag saxut boobu moom borom xam dañ cee wute te ñàkk gee sax sax mooy mooy mooy liñ gën a saxal waaye teewul nag am na ñu ko indi xadis bañ cay indi it dañuy wax ne xadis boobu daif la mooy nekkul xadis bu wér mooy ñàkk a sol dara it bàkkaar néew ci muy jaxasoo ñoom ñaan yëpp summi ko ba kenn desewul dara bàkkaar néew ci xadis bañ eh, ko solo ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ita ata ahadukum ahlahu falyastatir wala yatajarrada tajarruda tajarruda al ayrayni ñoom dañoo xam ne saa su nee na képp ceen kuy sëy soxnaam na làmboo dara na dese dara ci yére waaye bu mu ko bu buñ rafle ba mel ni ñaari mbaam suñ suñu ko mel ni ñaari mbaam ci nga la jublu moo ci mbaam waaye xadis boobu na dañu wax ne daif la mooy nekkul xadis bu bu dëgër kon li liñ bëgg a saxal rek mooy sumbi ko ba set wecc ci bàkkaar néew ñaar ñaari way dencante yi eh, bokkalal su fekkee ko nit ki takkoon ak teggin yooyu ànd ak damm ab jisam ci lépp lu xaraam bañ koo xool yëg ci xéwalug yàlla ci moom ci jàppandal gi mu ko jàppandalal mën a denc soxna ak teewal yéeneem ci ne lim ci lu mooy mooy mooy doyloo boppam ba du soxla leneen waaye doyloo it ay soxna ba duñ soxla leneen eh, ak feg fegal boppam fegal leen ñoom it lu xaraam subaa nag lam bëgg lam bëgg it ci li sox yaramam soxla lépp da koy am waaye ay soxnaa bi la seen yaram soxla lépp dañ koy mën a am su ko defee nag kon mooy yàlla ak tab yi ñu war a mën na caa bañ am te ay téere yu baree baree bari yoo xam ne yoo xam ne yoo xam ne téere yoo loolu donga lay jàngale teggi ni ñaar ñaar ñaar we denc ci kawlal bi moom rek lay jàngale am na ci am na ci ay téere yoo xam ne ci mel ni eh, téere bi ñu tuddee Tuhfatul Arus moom loolu dong lay jàngale ak téere bi ñu tuddee al-liqaa bayna zawjayni loolu dong lay jàngale ak téere itam taxatul xayaat az-zawjiyya mooy téere boo xam ne loolu dong lay jàngale kon la muy tekk mooy lislaam moom lépp la jàngale bàyyiwul dara euh, ni ko noonu fukkeel baag benn ci tomb yi mooy góor saa bu sëyee soxnaam ci guddi gi dama yàgg mu soxlaawaat ko soxna war sëyaat ak moom benn yoon ci guddi gi euh, sopp nañ mu jàpp mu dem tuur ndox jàpp door a jaxasoo waat ak moom ndax li yonente bi sallallahu alayhi wax ne ida ata ahadukum ahlahu thumma arada an yauda wuduan fii noo anshata fil awdi wala anshatu fil awdi yéen saa sa moo wax ne képp ci ko jotee soxnaam ba dem yàgg mu soxlawaat ko ci même guddi gi na jàpp am njàpp ndax njàpp ma dana tax mu gën a sawar dana ko dolli cawarte ca dellu ga muslim moo ko solo waaye ne ci anamu sopp la rek nekkul lu war waaye lu ñu sopp la maanaam njàpp mi su ko def du tax dara fekk ko ca maanaam du tax bàkkaaram ca waaye sopp nañ daal mu jàpp kon nekkul ak war waaye lu sopp la su fekkee na jàpp su fekkente ne sangu sangu nag ci diggante ñaari jaxasooy man naa am ca gëne xam nga jàpp la wax waaye su fekkee mën naa sangu na mën naa sëyi naag moom bëgg soxlawaat ko sangu door a sëyaat ak moom su fekkee mën na ko am na cawate ga moo gën ndax xadis bi abi rafi indi wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taafa daata yawmin ala nisaihi yaxtasu inda inda haadihi wa inda haatihi xaala fa qultu ya rasulallah ala tajcaluhu xuslan waxidan xaala hada azka wa atyaba wa athara abu daawud moo ko solo ne ñu saa sanam wër na ay soxnaam waaye eh, yoon wu ci nekk ak càngaayu lu boppam xam ñu saas li tax ñuy sañ a nettali ci moom yow tamuy tamuy gën ci ne ñuy sañ a ci moom mooy suñu borom da ko moom la ñu moo tax lu nekk moom daawu nëbb daawu daawu nëbb daraam ndax ngir jàngal jullit ñi euh, alxuraan di ko weer di di wax biir këram la fa xew ak yu mel noonu mooy la ko war mooy moom lañ teg ci suñu kanam gi di ko roy mais malaaj bi ne ko yar su la lu teewoon nga def ko lenn càngaay rek mu ne ko def noonu mooy yoon wu ne ak càngaay moo gën a sell moo gën a teey moo gën a laab kon su jaxasoo soxnaam ba noppi bëgg a jaxasoowaat beneen yoon sopp nañ bu mënee sangu moo moo gën da ko def door a jax sootam su ko mënu mu jàpp ci lu ñu sopp su ko mënu nag jàpp jàpp sangu du wàññiwul dara ah su fekk bu seeyate moom maa sooy seeyee moom benn yoon bëgg seeyaat ak benn yoon ñaaril soo mënee sangu moo gën door a seeyaat soo ko mënu nga jàpp door a seeyaat waaye soo ci deful lenn nag mën ngaa seeyaat moom ci waaye waaye boo seeyee moom ba noppi nag moom da ngaa war a sangu moom ñoom ñaar ñëppee sangu ñoom ñaar ñëppee sangu muy góor yi muy ku jigéen ki fukkeel baag ñaar ci teggin yi mooy daggan na ci ki nga xam ne sangu war na ko mu nelawaale janaba ja laata muy sangu mën a yeexe cangaay la lu jiitu waxtu julli wi dagan na waaye gënul nag la gën mooy mu sangu door door nelaw waaye soo ko nelawalee ba fajar ba waxtu julli jot mu dooru jóg sangu dooru jullit teewut teewut eh, dara du ci fekk waaye sopp nañ na mu jàpp boog bala balaa nelaw eh, su ko mënee dañ ko sopp rek moom it ngir dëgëral xadis bi nga xam ne Omar moo ko moo ko moo ko moo indi ne laaj na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayanaamu ahaduna wa huwa junubun fa xaala alayhi salaatu wasalaam naam wa yatawadda insha rawahu ibnu xabbaan Omar dane ko yaa rasulullah ndax kenn ci ñun naa nelaw te fekk mu yore janaba mu ne ko waaw waaw waaye nag na jàpp bu ko soobee na jàpp avant muy nelaw bu ko soobee waaye bu ko soobee la wax Ibn Xabaan moo solo xadis boobu bokk ne lii war a sangu it mooy génn ma nii donte du ci sëy donte du ci sëy ndax li yim saa sama innamal maa'u minal maa' kon saa boo xamee ne nit ki génn na mën yu te yëg ci bànneex ba ba mu daa yëg rek mooy fekk dafay jonjoog jigéen di ci yëg bànneex wala mu koy xalaat wala mu koy xool ba mën yu génn ci ànd bànneex bi mu baax war a àndal donte du ci sëy euh, teewul sang war na ko dagan nag ci ñaari way dencante ñu sangoon doo ci lenn ndab sangoon doo ci benn sens ñoom ñaar ñëpp summi ko kenn ku ne gis moroom ñu boo ko sangu dagan na soxna borom këram ndax sa bu ñu xasee ne eh, fas sëy bi rek kenn ko kenn ko ne ci ñoom sañ naa gis léppi moroomam borom kër sañ naa gis léppi am soxna sañ naa gis léppi borom këram moo kon dagan na ñu sangu ñu bokk sangu ñoom ñaar ñu ne ñëpp summi ko bokk sangu dagan na ngeen xaddis bu Aysa nettali ne wax na daanaa sangoondoo ak rasulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam la mooy tegtal kon dagan na ci lenn ndab la wax Buxaari yi ak Muslim ko ci solo na xadis boobu fukkeel ba ak ñett ci tege ñi li ñuy tuddee aslu dagan na aslu mooy boo sëyee sa soxna bàyyi bëgg a eh, àgg mu rocc ko tuur ndox mi ci biti loolu dagan na waaye nag ci sàttum nag nga di soo di soo ca sa soxna ba mu nangul la ko waaye bu du ko nangul doo ko sañ kon fawu sa soxna ànd ca nga door koo sañ mooy boo jax soo moom ba nga xam ndox maag ba génn nga nga génne ko tuur ko ci bitti loolu la ñu tuddee aslu dagan na ci sartu boo ci boo ci amee ndigalal sa soxna lu war mooy da ca am xàq ndax loola bànneex lay doon ci moom soo ko defu nag kon xañ nga ko bànneex booba moo tax kon dana dana dana gërëm loo njëkk loola euh, soxna it ba su fekkee bañ dooma tax nga di ko def sa soxna it mën naa bëgg doom moom kon boo doo ko xañ bànneex ba mu ca yëg doo ko xañ itam bànneexu doom ba ca war a mën a am moo tax ñu ne kon faaw nga déggoo ci ak moom ngir xadis bi xam ne jaabir abdullahi moo ko solo radiyallahu anhu ne kunna naasilu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sa balagha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa lam yanhuna nee na ñun kat ci jamono yenn saa si dañ daa def dañ daa def aslu mooy dañ ko daan def lool mooy loolu mooy leeral léegi dañ ko daan def ñoom yenn saa si yëg na ko te terewunu ko yéeg gi mu ko yéeg te téerewuñu ko nag moo nuy xamal ne kon moo nuy xamal ne kon daggan na buxaari yi ak muslim ko ci nekk solo na xadis boobu waaye la gën a yaay nag te gën a rafet daal mooy bàyyi loolu mooy mu bako bañ ko def ndax ay mbir mooy euh, mooy dafay xañ soxna si bànneex ba mu raam muy benn ta bànneex ba mu xàqam la ñaare mooy mooy da koy xañ bànneex wala wala day wala boog day wàññi bànneexam da koy xañ bànneex ma wala wàññi bànneexam ni ko noonu bokk na ci it mooy dafay dàq maqaasid mooy jubluwaay yi ñu amoon ci dañ ci soxna jubluwaay da caa bokkoon bari xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bari xeet ndax yonent sax dafa wax ne dee leen denc soxna da ci am i doom ndax ëllëg bis penc bari sama xeet dama koy damoo dama koy damoo ci kanamu xeet yi ca des kon amul sikk sàkk ci ne ko ko ko ci ne kon bañ ngaa def kon mooy li gën donc dagan na bañ ngaa def mooy li gën loolu ca ngay déggee ne kon jëfandikoo leneen luy tee am doom su fekkee danga bañ am doom it na muy jumtukaay bu ñuy jëfandikoo ngir bañ am doom dagan na ci kaw bu fekkente ne eh, eh, waaye loolu lépp nag mooy li ma wax léegi mooy bañ ngaa def moo gën ni ko noonu sumbi ko ba set wi ci itam amuy sikk sàkk ci na am na ay njariñ sumbi ko ba sedd wi ci bu ñuy jaxasoo ndax ñu wax ne ca nof laayub yaram nekk ci tàngooru jant bi nga xam ne moom la yendoo ñaare mooy da dana mën a wëlbatiku ndeyjoor càmmoñ nu mu ko soobee ñaareel ñetteel mooy dana tàbbal mbégte ci soxnaam dana dana mën a bégal soxnaam dana dolli itam bànnee xam ku ñu wax ibnu mamun dafa ci xasidaam ne waxdar min jimaa fi thiyaabi fa huwa min al jahli bil irtiyaabi moom daa wax na moytandi ko di solisir ci booy jaxasoo ndax neen jaxasoo di solisir bokk solisir bokk na ci ak réer ci lu amul benn sikki sàkk moom loolu la wax moom waxdar min al jimaa fi thiyaabi fa huwa min al jahli bi lartiyaa bi koña ibnu Maamun maa ko ci xasidaam fukkeel baak ñeent ci teggin yi sopp nañu ci ñaari way dencante eh, buñ so buñ sëyee bu nopp kenn ko nekk na wut aw ma sa fomp li taq ci moom ci sobe fomp kanamam sopp nañ ko waaye sib nañ nag mu doon wenn morso wax na kee ca lay famp kee famp ca loolu dañ ko sib la gën mooy kenn ko nekk am morso boppam wax na ca fompo waaye wenn morso ñoom ñaan yëpp famp ca leen lool dañ ko sib waaye famp goon sopp nañ ko fukkeel ba ak juróom xaraam na ci góor muy sëyeeg soxnaam di imaginer keneen yaa ngi see sosoon waaye keneen ngay imaginer ci sa ci sa xol mel ni kooku nga koy seqal loolu daa xaraam te aw xeet la ci xeeti xeetu njaalo la see sosoon di imaginer keneen koo xam ne sa xel daa ne ci moom loolu dañ loolu eh, dañuy wax dafa xaram dafa xaram teyit aw xeet la ci xeetu njaalo bàkkaaru njaalo la ci yam nawoon min anwaa zina la wax fukkeel baak juróom benn ci teggin yi mooy jaxasoo soxna daggan na ci weer yépp ci waxtu yépp ci bis yépp ci saa yépp léegi da nga gis ci internet bi ñuy publier di wax naan bis sangam nañ ci nañ ci moytoo séy sa soxna ngir nangam nangam walla weer sangam waaye séy soxna amul weer weer wu mën a doon dagan na amul bis bés bu mu mën a doon dagan na amul waxtu waxtu bu mën a doon dagan na amul barab barab bu mu doon dagan na loolu ca mbedd digg mbedd dama xanaa parce que yéen ñaar ne ci kër gi bu doon ci ëtt ba sax sañ muy ci ëtt ba muy ca waañ wa ca saal bu fa mu mën a doon rek fu ko santire rek sañ ngeen ko defee foofa eh, li fekk nag keneen néew fa waaye su fekkee li fekk yéen a ngi dal yéen ñaar fu mu mën a doon di dagan na lu dul nag muy ci jamonoy baax mu nekkee ci baax day xaram nga sëy moom wax nañ ko ci tegin ci gannaaw boo nekkee ci nifaas mooy dafa am doom te séetagut ba te day xaram nga sëy moom xaram na it bu fekkee dangaa ngaa ne ci xa da armal da armal aj wala wala umra te jeexalagoo day xaram ak jamonoy koor ci bëccëg bi bëccëgu koor bu dul yooyu rek bis bu mën a doon ak waxtu mën a doon ak heure bu mu mën a doon ak barab bu mën a doon dagan na sopp nañ it bokk nañ ci tegee ni ngeen def ko fu suturlu ma mooy koo xam ne kenn du leen gis suñ duñ leen gis duñ leen dégg duñ la gis duñ la dégg foo xam ne buñ la duñ la duñ la gis duñ dégg dara luy jege ci yéen duñ ko dégg loolu luñ sopp la su mënee nekk loolu da nga ca ne waaye xaraam na it sëy sa soxna kon ci kanaamu keneen kuy gis mën a kuy xol mu kalaf léeg na nga gis koo xam ne day néew doole këram benn néeg a fa am mu bokk soxnaam ak i doomam kon lañ cee sopp mooy balaa séqamu na bàyyi ba doom ya nelaw waaye bu mu sëyeeg moom ci seenug yewu su dee mag mu ne la wul la nga ko nga di ko def def ci kanamam day xaraam su dee mag muy nelaw dañ koy sib su dee gone gu nelaw dañ dañ dañ ko xamul ko dara dañ koy sib kon moo dañ caa soxla sutura sutura eh, bokka sa soxna yépp mooy de see kenn sa seen soxna seen soxna sa teewe ko mooy daxar dañ ko tere maanaam sëy sa soxna ci teew seen sa seen son mooy yaa sa soxna yëpp yenn bokk bokk lal ngay sëy kenn ci ñoom loolu lañ ko tere tëdd nag ñoom ñëpp nag ci benn lal ci lu dul ngeen di sëy nag dara néew ca moom donte sim nañ ko nag donte sim nañ ko waaye dara néew ca waaye sëyeeg kenn ndaka ci teewaayu ka ca des moom it daa xaraam ndax buñ ne ci teew ak mukalaf dañ ca dañ caa yamal mukalaf mën na doon góor wala muy jigéen moo xam sa soxna la moo xam du sa xam lu mën a doon ci yow rek mooy sëyeeg sa soxna ci teewaayu keneen surtout muy mag surtout muy ko nelawut eh, dañ ko tere waaye bu dee mag muy nelaw dañ koy sib ndax mën naa yeewu ci diggante bi te loolu sax eh, ci teewam sax muy nelaw xëy na loolu koy war ngànt koy war mooy li ma wax léegi borom kër bi nga xam ne benn néeg la amagoon ci këram moo ko soxna moo ko soxna ñoo ko bokk ay doomam ne ne ci ñoom ñëpp ñoo bokk néeg bi kon du bala koy sende mooy na néeg bañ nelaw mu door a sëy ak soxnaam kon yëpp dafa bokk ci nga des na ko sàmmante ci diggante ñaari waaye dencante bokk na lañ tàmm it mooy bu booy sëy moom jëpp wax mooy ngeen di waxtaan waxtaan waxan day gën a yokk seen bànneex dagan na waaye bu mu doon wax ju xaram lu mel ni saaga lu mel ni saaga wax ju wax walla wax ju ñaaw bu mu ëpp dañ koy dañ koy tere moom moom moom ci sëy lu du sëy lépp dañ koy tere waaye nag jépp wax joo xam ne seen koy waxtaan day doon waxtaan wuy jeqe seen bànneex ci biir sëy bi wala ne gën a yokk bànneex loolu dagan na Euh, bi jamono yi ngay sëy ak moom yi nag naga moytoo xool ba na nga moytoo xool kanamam ndax di sëy ak moom di xool kanamam wax ne dana waral ba su ca doom juddoo silmaxa loolu Sëñ Tuubaa indi na ko wax ne naa lii la ko yéen saa sam digaloon dafa amoon ab seet mu ne ko saabu seet bi ñëw bu ñëwee nanga teg sa loxo ci boppam jàng surtu yaasin ak nangam ak nangam nañ ko jàppal njàpp ma nga bis ko ci ponk néeg bi déglu si naaliyu ne ko ci weeram mu njëkk na cay moytu lu forox la mel ni vinaigre ak soble wala lépp loo xam ne lu forox la na koy moytu ci weeram mu njëkk ne ko si naaliyu bul jaxasoo sa soxna ci ñeenti tànk ñeenti tànk mooy ni bàyyi ma di taxawee mooy sa soxna def noonu nga sëy ak moom nga jaat ginaaw sëy ak moom nee bu ko def ndax day niru jëfi mbaam loolu xay na luñ ko jagleel ndax gaa yi day yem léegi lu leen jagleel mbaa lu ñu leen tere waaye taxut nag mu doon lu aay ndax ni mu waxoon léegi ci gannaaw ne ànd naa chitum ji ba borom wax mooy mooy position bu mën a doon dagan na li fekk rek yaa ngi sëy ak moom ci ci ci pay mi ci kanam bi ne ko it bul jaxasoom di xool awraam ndax dana waral su ca doom juddoo silmaxa ne ko nanga moytu di di di di sëyeeg moom di wax ndax dana waral su ca doom juddoo eh, lu du mën a wax waaye ba tey moom tekkiwul ak ñàkk dagan te waxtaan moom dagan na ci biir ci lépp luy jeqi seen bànneex kon su ko defee yaakaar naa ne li ñu doon jàngale kon ci teggi na kaw loolu def naa leer na yu euh, ci ba dañ doon coos rek na ndax bañ a bañ a wax lu safaanu teggin waaye teew na wax nañ ko wax waxin waxin jàpp na ko ko dégg ko nekk dana leer ci sa bopp kon ñu teg foofu suñu baaraam incha allah ba deesuwaat ak eh, yéen ëllëg ci beneen beneen beneen tomb ñëw ak yéen nag ci ñaanu bis bi ñaanu bis bi tey dafa bokk ci ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy allahumma inni audu bika min ilmin laa yanfau wa min qalbin laa yaxshau wa min nafsin laa tashbau wa min daawatin laa yusta laa yustajaabu laha ma yow sun ba maa ngi lay ñaan yàlla nag ma musal ci xam-xam bu amul njariñ musal ma ci xol bu la mu ragal yàlla musal ma ci bakkan bu dul suur mukk ci dundug àdduna musal ma ci ñaan guñ dul nangu loolu mat di ñaan la xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wax na ne sababu naasi fusuuqun wa xitaaluhu kufru nee na saaga nit ak kàccoore la xeex ak moom nag kéefar la kon saaga ab jullit da ab jullit dafa war a làmboo teggin te saaga ñàkki teggin la moo tax man saaga nit ñi ak kàccore moo ak caay-caay la waaye xeex ak moom nag ak kéefar la sababu naa si fusooxun wa xitaaluhu kufru Abdullah ibn Mas'ud moo ko moo moo moo ko indi ash-Shaykhaan ñoo ko solo mooy yi ak Muslim ñu di leen day suba ak jàmm incha allah ci ci jotaay bi ci waxtu yi eh, mu nekkoon sen télévision Lamp Fall seen émission eh, Fardul Hayni nuy ñaan li ci nun yàlla na ko suñu bon defal te dëppali ko li nu gënal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa